Euh, projet de loi wu góor jigéen ñi dem ci assemblée nationale ah, euh, projet de projet de loi ci wàllu pétrole bête ni ñu koy ŋàbbee euh, président Macky Sall dafa précipité yëf yi ah, ci assemblée nationale ndax mën na am yoonu mu war a jaar la ñu sàmmante woon ci digg at mi ci noonu la ñuy téye pétrole bi ak ni mu ko présenté démb safaa noona lool mooy li jaaxal député mali Gueye bokk ci grand parti ba tax mu jàkkaarloo ci ak taskatu xibaar yi Ali Badara Sonko moo ñu fa teewaloon projet de loi bi nga xamante ne moom lañ nar yóbbu assemblée nationale ci li nga xamante ne moo soxal suñuy ressources pétrolières ak gazières député Malick Gueye bu grand parti moom nee na xelam tey na ci lool ndax mënta comprendre lu tax président de la république Macky Sall yàkkamtee nii ni mel. président de la république dafa def proposition wax ne dafa bëgg a waxtaanee nan la ñuy séddalee koom-koom bi jógee ci maanaam pétrole beeg gaz bi. format bi sax ça parce que benn waxtaanu 6 heures mënuñ ci séddale treize mille milliards. moom nag mu jàpp ni sax lii lépp balaa moo am dañu war a ubbi ay waxtaan yu yaatu ci diggante société civile politiciens yi ak ñi nga xamante ne ñooy kilifa diine yi. mais dafa war a nekk waxtaan bu yaatu boo xamante ni dañ ko war a def ci waxtu yi yi mu doyee. dem waxtaan ak acteurs yëpp parti politique yëpp coalition yëpp marabu yëpp waxtaan ak ñoom ci nan lañuy ñuy séddalee xaalis boobu. moom député Malick Gueye bu ko en partie di proposer sax que koppar yi nga xamante ne mooy tukkee ci les ressources pétrolières ak gazières yi nañ ko financer collectivités locales yi. Aliou Mbadou Sonko maa ngi lay jaajëfal collectif sàmm jikko yi ak juróomi député ci assemblée nationale déposé nañu benn projet de loi buy criminaliser ak ngóor jigéen. dootul nekk rek ay délit ak yu mel noonu mu nekk nag xeex bu am solo boo xamante ni bii sas la ci kanamu député yi ngir ñu sàmmanteeg xam ni askan wi bañ nañu ak góor jigéen Alassane Balde moo fa teewoon. tolloon nañu ci juróom ci ay député ak membre collectif sàmm jikko yi nga xamante nag ñoo sol seen dal daal di déposé ca table président assemblée nationale proposition loi bi jëm nag ñu fexe ba criminaliser li nga xam ne ni mooy wàllum góor jigéen ci mim réew proposition bu ni mel nag lu mën a nekk la suñ sukkandikoo ci chef de délégation ba. donc au président de l'assemblée nationale mais également copie au secrétaire général de l'assemblée nationale defal nañu décharge yi en bonne et due forme kon nag euh, euh, euh, lu ci war def nañ ko. collectif boobu nag jàpp ni faaw rek ñu tëral ay loi la ko mooy nag askan bi ñoo koy fajal seen bopp. suñu bàyyee luy raam ci ñàkk ba la jëm le peuple va se faire justice lui-même. Mame ak ay ñooñam jàpp ni lii occasion la ci njiitul réew mi rek mu daal di tranché jëm ci bile débat. au ñoom ah, non non on n'est pas Justin Trudeau non non su bëggee lobby homosexuel yi may ko jàmm na jàppale projet bi ñu criminaliser ko. nag boobu de loi di jaar ci circuit bi jëm ci assemblée nationale sàmm jikko yi am yaakaar lool ci député yi daal di adopté bile loi ci bës bi nga xamee nii ci la ñuy amal plénière ba. maa ngi lay jaajëfal Alassane Balde euh, Birahim député yi am nañu sas de ku ni déet ñu daa ñu ko dégg de dañuy criminaliser ak ngóor jigéen fii ci dëkk bi. Euh, dafa am benn euh, dama koy xool sànq ci yéenekaay bi le quotidien mu def ci liggéey bu am solo. Mhm. Euh, ci lu soxal mbirub criminalisation homosexualité gis naa tamit Dakar Times bind ci wàll woowu mooy xalaat boo xam ni ñu bëri amoon nañ ko benn ci man mooy nii dafa am ay ay faits ay actes yoo xam ne dañ ko posé au fur et à mesure depuis un certain nombre d'années yoo xam ne da ngay dem ba ne jiix dugg ci. légaliser homosexualité sans t'en rendre compte mm-hmm. c'est-à-dire que le sénégalais lambda mm-hmm. ma ngay seetaan ay loi ay mbir yu ñuy soppi benn moo ñu ne la doot ñu wax wàlluk sexe wàlluk genre la ñuy wax ñu ngay soppi yenn ci ay euh, terme wala terminologie ci yenn mot yoo xam ne fan lay mujjee mooy da ngay xëy rek ñu ne la légaliser nañ ko parce que loi ba yaa ko woon ca euh, li ñuy woowee référendum wala voté woon nga ko ci assemblée nationale jàll na ba noppi mais il faut nécessairement que muy les députés de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. muy les Sénégalais parce que ñii nga xam ne ñoom ñoo jël euh, bi les propositions de loi yóbbu ko Assemblée nationale ay député ngi ci euh, di euh, représenter Sénégal ci représenter ay sénégalais ci assemblée nationale waaye tamit am na ay sénégalais yoo xam ni lii leen soxal mooy lu ñu woowee sàmm jikko yi dellu soit ci jikko yi nga xam ni moom la ñu xamee ci biir réewum Sénégal ñooñ ñoo war a taxaw jatu ni soccet te xool ndegam dañu bàyyi yenn ci ay. fait ay actes yoo xam ni dañ koy gën a euh, méngale ak légalisation lii di homosexualité il faut faire très attention par rapport ak euh, li nga xam ne ñu ngi koy tudd ci wàlluk euh, criminaliser lii di homosexualité il faut nécessairement que député yi ndax Euh, bu ñu leen joxee proposition de loi dañ koy xool lañ sa war a amandé ñu amandé ko fu mu war a jàll di procédure bi mu war jaar yëpp ñu jaar fa et c'est heureux d'entendre ku ci mel ni Adji Mbergane Kanouté di euh, euh, vice-présidente ci groupe parlementaire majorité ne ni dañu bàyyi mbir mi dem ca fu mu war a dem mm-hmm. muy procédure bi yëpp daañu ko topp ba bu fekkee ni dañ ko war a voté ci criminalisé boobu ñu voté ko mais que nit ñi ubbi seen i bët xool te na ñu continuer di dem ci kilifa diine yi ngir xamal leen lan mooy danger wu bañ a criminaliser li nga xam ne moom mooy homosexualité au Sénégal ndax ñu ngi koy foye ñu ngi ñi ci nampatal di ci nampatal suñuy njaboot ci lu jëm ci wàllu homosexualité daanaka dem nañu ba de manière tacite ñu ngi koy dugal ci xelu nit ñi. Mm-hmm. alors que loolu dañ ko ci war a génne teg ay actes forts nag yoo xamee ni duñ ci xool ndegam su ma defee criminalisation homosexualité peut-être États-Unis bañ ma doon jox cent franc dootuñu ñu ma jox cent franc. am na loo xamee ne sa biir réew yaa koy sàmmal sa bopp bul xaar keneen ñëw di la defal yow say loi bopp wala di soppi sa doxalinu askan parce que peut-être arrangé wu leen li ñu bëgg mooy agenda la dañu yore seen agenda agenda na nga koy amee dañuy du premier janvier au 31 décembre lii laa fas yéene def LGBT yi dañuy am seen agenda boo xam ne dañuy jàpp ni at bii dinañu songu Sénégal at sangam dañ songu beneen réew dañ fexe ba ci domaine yii ñu soxla ba ci wàllu jàng gis nañ fi koo ne dafa Euh, jël benn euh, sujet philosophie. Mhm. Euh, wala anglais. Mhm. def ci. loo xamee ni ci promotion homosexualité la jëm. fan la mhm. mujjee di jéggalu daan def ko rëcc wala yu mel noonu amul lu ñuy rëcc am na loo xamee ni ñoo koy def. mais dañuy seet nu ñuy tuuree lëndëm askan wi ba jàllale ko te kenn du ko wax c'est un rôle nag boo xamee ne tey muy média muy les hommes religieux muy la société civile muy ñi nga xamee ne dañuy xeex wàllug homosexualité dañ ca war a taxaw ba loolu duñ ko bàyyi mu romb noonu. alors moom foofu nag est-ce que sax du tiituñu bu ñu xoolee vraiment origine Sénégal jaar-jaaram cosaanam ak jikko yi fi nekk bu ñu demee ba naan ndax daañu ko voté ak duñu ko voté ci ay député ci assemblée nationale ci wàllu ngóor jigéen est que jotul sax nag tiit jot na ragal jot na te xam nga élage li ci gën a doy waar mooy man mënuma comprendre li nga xam ne dañ koy wax ne woy wàllum mu góor jigéen wàllum góor jigéen wax ji di law mais dëgg bi mooy Mansour fii ay punkalum jëmm siiw mel ñu toll fenn ñoo fiy def promotion góor jigéen te ñi ah. xam nañ ko ah. te ñi ngi toog di ko seetaan ñi ngi toog di ko seetaan donc tey jii nii ñii nga xam ne ñoom ñooy député yi warul sax nekk loo xam ne ay débat la ak yooyu vote sans débat la war a doon parce que ñoom ñëpp ils ont la responsabilité historique et devant le peuple par rapport ak li nga xam ne. Mhm. moom mooy tey sookulu li nga xam ne moom moo taxawal tey Sénégal. Mhm. beneen bi bu loolu weesoo ñoom la ñu mën mooy xaj na voté loi mais beneen liggéey bi nga xam ne moo ci am solo mooy askan wi ñoom ñoo ko war a def. ku ci nekk da nga war a jël nekk soldat sa bopp boo xam ne da ngay xeex lu jëm ci wàllum góor jigéen parce que am na yenn yoo xam ne bu fekkee voté nañ ko loi yi ñun ci li nga xam ne moom mooy dans la pratique ak réalité bi nit ñi faillir par rapport ak cette responsabilité là ça va poser problème te loolu du tee day gën a def lu dul gën a lawal góor jigéen beneen bi ñu ngi wax naan woy nañu euh, criminaliser góor jigéen mais nan nañuy waxee ne wéy Macky Sall taxaw pare guñu pour góor jigéen law fi góor jigéen du fi am démb barki démb ay sat taal sàll génn ne wéy góor jigéen ñi moom ne leer ne Sénégal duñ ko mës a daganal mais li nga xam ne moom moo jëm ci code de la presse bu bees bi article <laughs> ñu ñëw ñu ne yow yaay journaliste yi mhm. kenn du fi wax li nga xam ne moom moo jëm ci orientation sexuelle lu nit ki waaw loolu du promotion góor jigéen ñu ne journaliste yi ñu ne ñii ñooy taskatu xibaar yi ñooy jottali xibaar ñooy joxe xibaar yéen amoo leen droit wax ci li nga xam ne mooy orientation wu sexuelle nit ki moo xam bu nit ki nekkee góor jigéen doo ko wax bu nekkee lesbienne doo ko wax bu nekkee leneen doo ko wax waaw journaliste yi bu ko wax loolu kay moom mooy léegi journaliste yi bu leen ko wax bu ko defee promotion. góor jigéen dina jëm kanam du leen neex te kenn du leen tudd. kenn du leen tudd donc ñun ñi ci code de la presse bii fa la coow li njëkk tàmbalee loolu nañu war a njëkk a xeex bu ñu paree ci wàllum loi gi il faut ñu attaquer code de la presse bii ni article dix-huit bi ñu génne ko fa sànni ko fële te lu jëm ci wàllum journaliste yi ñu bàyyi leen lépp lu ñu bëgg a wax dañ koy wax journaliste bu nangu ñu tëj sa gémmoñ ci nga gis ak ngóor jigéen te traité woo ko <laughs> yow donc la concerné tubaakàlla Maodo foofa ñàkk fay nag daanaa yëgul foofu. ah journaliste bu ko waxul de kilifay diine jàpp. journaliste bu ko waxul de moom yow la engagé mais ñun moom un continuera on continue et on di dénoncer li nga xam ne moo jëm wàllum góor jigéen parce que duñ ko nangu parce que tamit ñun ëllëg. suñuy doom dinañ ñu laaj oh, au lan ngeen doon def pour tey jii ñun ñi nga xam ne ñoo ñoo les générations futures jaajëf Mamadou Fofana kon on se donne rendez-vous ci kanam tuuti incha allah.